coow li di bari coow li ku ne ñëw fi waaw waaw kër gi nekk na benn nangam nangam nañu boole gàmm yi waaw course bi coow lu bari nit ñi tey gën xam boroom on ne peut Seyid Cheikh Ahmed Tijani li ma wax ak moom juróomi at avant jugoo bi di ñëw kenn fekkewu ko lu dul yàlla lam ma wax xam naa ko la ma ko wax xam na ça ne concerne bi ci des itam mooy course bi gàmmu bi ñu fi njëkk a gàmmu 1995 la mais avant ñuy gàmmu course bi fan la ñu gàmmu du place de ñu gàmmu ndax dañ ñu tere woon ni du ngeen gàmmu Tiwaawoon ñu nar ko bàyyi ma ni góor gi déedéet bu ñu gàmmuwul Tiwaawoon it gàmmu ji feneen te lañu def sunu gàmmu bu jëkk ci place de France ca Thiès mu boole maag Serigne Pape Malick ñu dem. Moustarchid yi ñëw fa waaw déwén sa ca la ma waxee ni ma dafa mel ni man ngeena a waaj ñu gàmmu ji ci waaw ma ne ko fan lañuy gàmmu mu ni ma dem leen ca champ de course mu ni ma max man bi may am opposition ci sama mission fu mu wóor ni dañ ma fay dàkk rek duma fa dem moo tax waxtaan bu ma def muy Dakar ak feneen ci champ de course laa ko defee ma ndax champ de course kenn moom waaw ah. ma ne kon dem leen ngeen préparé foofu ñu defee fa gàmmu ngeen déglu ko bu baax de parce que nit ñi dañuy sow te duñu xam lu nekk lan la mais avant gàmmu bi di ñëw mu ni ma dama bëgg def ñaari waxtaan mu ko waaw mu ni ma benn bi Dakar laa koy defee benn bi coow ma ni ko bu Dakar bi fan nga bëgg ñu defee ko ma ni ko fan fan nga xalaatoon mu ne ma seetal rek mu ni ko tey ñu ko defee grande mosquée mu ne ma demal nga seet yaay laa ji Maodo Sy la nga wax ko man maa la yónni dama war a def waxtaan Dakar ñu abal ñu foofu ci grande mosquée ma ñëw seeg si El Hadj Maodo Sylla wax ko yóbbante bi mu ma wax nga ma lu ma kontaan maa ngi sol sama dàll léegi dem seeti ministre bi nga xam ni ci moom la ñu aj grande bi te mooy le ministre de il n'y de problème ma ne ko ban ban waxtu lay dellu si suba pour nga jox ma réponse bi mënuma suba ci même waxtu bi cinq heures boo dellu see di dina am réponse te suba sa ca cinq ma ñëw di ko seet si pour jël si réponse bi booba Alaaji Maodo nekku fi ma dem ci beneen kër soxnaam ñu ni ma Alaaji Maodo nekku fi ma demaat ci beneen kër soxnaam bi ñetteel bi ñu ni ma Alaaji Maodo nekku fi ma dellu ci Sëriñ gola ji Maodo ko dafa waxoon ma dellu si pour réponse bi mais dem naa ci ñetti kër yëpp fekkuma ko fa mu ni tekk ba ca yàgg mu ni ma dem leen seetee stade Demba en tout cas boobu di du war poser problème yaakaar naa bu ma ci waxtaanee ak Lamine Diack du war poser problème ma dem seeti Lamine Diack ñu ko góor gi dafa bëggoon def waxtaan dafa bëggoon ñu abal ko stade Demba Diop ndax grande mosquée la doon. bëgg waaye El Hadji Maodo mi ko waroon na dox dama fa dem ñetti yoon fekkuma ko fa te date bi góor gi bëgg a def waxtaan bi fii ak une semaine ma ne ko ñu bëggoon nag boo ñu mënee toppatoo le stade bi góor gi defee fi waxtaan bi mu ne ma kon dinaa dem seeti le ministre de la jeunesse et des pour ñu jox leen stade bi bu subaa nga dellu si le lendemain ma dellusi pour gis ko ñëw ci këram fii fi ma ko gis woon ana Lamine ñu ne dem na Côte d'Ivoire xew léegi wax lan mooy sabab bi ma ñëw wax ko ni ko dem naa seeti Lamine ñu ni ma dafa dem Côte d'Ivoire mu ree ni ma waaw léegi loo xalaat nag ma ko ni def waxtaan bi mu ni ma fan ma ko may ma di dem daa di dem foire ba laajte salle bu mag bi ñaata lañ ciy fay toog directeur bi mu ni ma ban ngeen ko bëgg man ko samedi bii di ñëw mu ni ma y problème cachet bi deux cent cinquante mille francs la à l'époque ma génne cent cinquante mille def ci kaw table mu daal di bind kayit jox ma ma ñëw ci góor gi wan ko kayit gi ni ko fay nañu samedi bii di ñëw ca ngoon nga directeur bi téléphoné ma ni ma dootul mën a nekk nekk jot na ordre bu jógee ca kaw ñu ne ko il n'est question pour Cheikh di def conférence foofu dama bëgg nit ñi di xam lu ne bala ñuy soow xam lu ne nu mu demee naan la waaw waaw wallaay dëgg la dëgg la moom la soxna kii ne wax ni il faut faire très parce que nit dana nekk ci dara walla mu jël position ci dara nga di ca wax te la nekk sabab xamuloo lan la wax na dëgg waaw wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wax na dëgg de ma ñëw wax góor gi ni ba directeur bi joxe woon confirmation ba ñu faykat nee na bi disponible date boobu mu ree ñi ma ci seen fayda rek dinaa def waxtaan ma dellu si ci directeur foire bi mu daal di lay ni ma noo date bi dama juumoon seetuma ko nangam nangam man ko seetal ma date yi fi libre yëpp xam nga pexe ma ne ko foofu date libéré rek mu daal di xool xool daal di may jox benn date ni ma bii mën naa ne ma baax na ma ñëw wax ko góor gi jóge fa directeur bi téléphoné ma ni ma waaw ah, d'accord nañ ci mais le ministre de l'intérieur dafa wax ni nag seen nit ñi bu ñu génn enceinte foire bi ma ba tey mu Moustarchid yi ñëw mais bi yaatu na nañu fexe fu ñu mën a dugal nit rek ñu dugal ko te wut ay écran géant moo tax sutura yàlla yaatu na te la soog a ñëwee defee conférence mais li ci neex ci conférence annoncé ko ni góor gi dafay génn maanaam wax ko njaboot gi njaboot gi commencé di ko waxante ci seen biir le benn mag woote nit ñi ñëw mu ni dafay fen Cheikh Tidiane bu génnee fii rek ku ma gisati ne ma xaj waxtu wa jot bés ba sëriñ Cheikh ni tël ak jàllaam ak bu weex nekk fii Serigne Mansour nekk fii ndongal daara nekk si